jafandu tuma yebbu di la ñaanal iyo yaay yaqareeru balaa piki piki no yaay ramatu da kii ayca internet sans limite euh, ravide de vous retrouver nañ leen di leen dalal bu baax ci seen émission préférée quinze minutes sans limite xam ngeen rek seen émission moom quinze minutes sans limite duñu yem ci people dañuy dem ci actualité laal laal politique mais aussi dañuy laal li nga xam ne mooy astuce ak euh, beauté bu ñu waxee nag astuce fii da ngeen tàmm koo xam ne moom buñ ko tegee rek internet yi dañuy kontaan saa su ne di ko gis ci sans limite en même temps aussi mu leen di jox ay astuce yoo xam ne da leen di jëriñ ci seen néegu sëy kenn du ko présenté dama koy bàyyi rek moom mu nuyoo du ma wax sax turam day nuyoo rek automatiquement ngeen xam ko maa ngi nuyu sama tata sama maman. daal xam na ma def xale bi xam fu mu ne jox rek ma jóg man tamit lii tam lan la nii. ah waaye lépp sa yar sa yara la ko may rek ak sa wax ju dal tarkal la wax dëgg yàlla buñ sant yàlla julli ci yonent bi ñu sant suñu ñaari waajur waaye di wax jërëjëf te Serigne Touba miin nga kër gi nag te ba nga fi ñëwee yàggul nag mën naa ne seeni fi mujjee ñëw ci nga bokk waaye nag da nga fi am lu kenn amut xamoon la ko may sa yar te da ngaa ñeme moo am booje nag lu ma tàkk nga ma man loolu moo metti daal loolu daal moom naqari ko waaye ba xam loolu <laughs> maa la raw <laughs> ziar naa waa Saint-Louis yëpp di wax tey maa ngi lay déglu rek comme miinante nañ a ah, ca nañ nappante maa ak yow la. xam <laughs> man ragaluma loolu célibataire bu am fit laa ah. dama ciy dem ba mu jeex tàq ndax maman Mbooja moo nekk sama ginnaaw. balaa ngay ñëw <laughs> tàggul sa yaay de waaw baax na saa yu ñëw da ngay laax lu ma wax ne ma sama yaay bu ko déggee dina ma door kon dina la rey tey ndax tey gën a mitti de aywa xam nga jafandul bu baax maa ngi ñëw. ak soxna mbooje dinañ wax lépp loo xam ne astuce la ci néegu sëy mais aussi seddaay bi mu ngi ñëw dina ci joxe ay astuce mais dañuy commencer rek suñu question ci mbirum néegu sëy ak aussi yenn déclaration yi ñu ciy def. gis nañ benn vidéo nga ciy wax ñu naan fay làmp yi ci néegu sëy nga def ci déclaration daal bu doy waar diir ñu naan nañu fay làmp couple bu nekkee ci biir kii ci biir néegu sëy. ah waaw man kat doom damaa xam ni euh, jamono jii ñu toll <laughs> mais sëy sëy la xam nga dafa am loo xamante ni man Mbodj lu tax samay wax du neex parce que man dama du wax lu ma gëmut moo tax tout le temps li may wax du neex dara ji nañu xam ni nit mën naa xam sëy ba tee ko ci loxoom jeeg toog te xamut nu ñuy sëyee bu ñu defee ni jamono ji yëpp ñëpp xam nu ñuy sëyee ndax des fois Mbodj Mbaye wax loo xam ni day yomb lool ci jeeg bi koy déglu waaw dina yomb ci yow parce que xam nga ko mais am na koo xam bu ko déggee dina ko jaaxal parce que xamu ko comprendre nga te gis nga man boo jë fi ma toog kenn du ma fi jëlee xanaa dee xam nga lu tax ma fi toog man waxuma lu dul man dugguma ci lu dul sëy sëya ma ñor sëy laay wax sooy xool sama vidéo yëpp sëy la parce que nag sëy fi ne mais man xale bu ma gis ne da nga paralysé ci sëy sax dooma neex man xale bi may bëgg di waxal ki may waxal muy vivre et eh, mën a togg mën a fóot mën a bale mën a raxas dëgg la mais néeg néeg kenn du ko jënde dara te dafa am jeeg joo xamante nii seen xel te jéekoogul ci biir néeg et eh, lii ma lay wax du xale bu ndaw dong lay dal am na jéeg ju dëgër ba ne ci yi néegi sëy te xamuñu nu muy sëyee te xamuñu kawlal bi lu ñu ci war a def eh, am na góor ñi bëgg a dee ci néegi waay am na góor ñoo xam ne daraay weex dañ koy dégg am na góor ñoo xam ne fer dañ koy dégg cuuraay waxaatuñ ko te pourtant du ñàkk moo leen ko xañ de seen jabari ko xamu tayal ci gis nga jonge gii may wax ko kenn coof nañ may dégloo xel man ku ku koo xam lu baax tey déglu lu baax doo noonoo Mbodia Mbaye Mbodia Mbaye du pour ku ñuy noonoo parce que looy jànge la nekkul damaa gën a xam ñëpp mais xëy na yàlla damaa jox fitu wax wi ma tombeeg média bi gars yi di ma bëgg ma nag moo tax may wax kon lii may wax waxuma ko ngir kenn damay wax ngir diggante sama diggante ak yàlla parce que tamit booy xool sëy yi bari tas na fi laa la wax ci ñàkk a jonge sëy yi bari tas na fi xoole ci ñàkk xam sëy erreur yi ndaw moo koy tas et jigéen da ngay bandi ay fay lamp yii yooyu dafa yàgg dafa yàgg xale yi dundatuñ ko ay lan moo fi nekk démb lu ñuy dund tey bareetul bu naan sëy ormala bu njëkk la woon ndax kay na ñu ko doon dund loolu lan tombeeloon loolu lan xam jamono moo changé xale yi bittan ñu ko yor caay-caay gu bee tàq di téye seen borom kër di leen itam mbal ba mu neex parce que tamit nit néegam la am ah néegi ñuy cof bi bu kenn cof néegi nañuy téye ak fi réew mi nga téye góor gu ne ling fay làmp muy tañax tañaxi maari day taali dee ma ko gënal fay lamp man booja dee ma ko gënal te du ma wax lu ma gëmul ma ne taal lamp yi di défilé ni xool góor ñi la garde moi jàkkaarloog ñoom di lamsal di piis di weñaaroo ko buddeeku néeg bi di neex mais néeg day am jax-jax mais ay tee ay làmp di fay naan sa awray borom kër waroo koo gis fi amul lu ñuy nëbb awra yaram la comme yëpp daraja joo mën di am ci àdduna ak noo mën di toll sa néeg boo ko tëjee yàlla gën a bëgg sutura moo tax mu def guddeek bëccëg yàlla daa def guddi def bëccëg tubaab ñoo def lampe bu tàkk def lampe bu fay bu ci nekk am na lu muy tekki bu tax ma tëjee sama néeg bii du ma taal sama lampe bii mais déguisement boo ko solee ci biir néeg fay lampe ban njëriñ la am eh, wax ma lii waay boo xeesee sax mu tane waaye boo ñuulee ba mel ni Mbodia Mbaye fu nu lay gisee dugal ko nit ci ñi ñi jënd mel ni ku ne ci almer nu ma ko def dama koy taal wan la li ma sol du ma jënd déguisement bu seer pare di làmbatu ci néegi tëjëx tëjëxi te sama jëkkër ji mu tagg ma ci farataak sunna mu nëb ko lool jëndal mee nii fay làmp seet fay ko seet taalal ba mu neex jàkkaaroo ko góor ki dafa moom la ca war am na góor ñu bari di génn kandang kandang danoo amut lu ñu bëgg seen biir néegi gis nga nit loo gëmul bul ko wax ak Mbodja Mbaye lu fi waaye wax ci mbirum jonge lu dëngoowut ak li may wax man Mbodja parce que nag nit mu fee wax lu ma waxut Serigne Bamba laa la giñal ci néeg munu fee wax lu ma waxut lu fi waay wax Mbodja gàllax ndikoo na ko ba toog di xaar ndax xam boo gisee ne samay wax di mitti li ma gëm laay wax lu ma gëmul duma ko wax ab jeeg da ngay takki fer da ngay taal cuuraay da ngay taal dara da ngay def dara ay weex tàll di kundun kund ngi ci biir néeg bi di défilé waaye di fayi làmp ka làmbatu góor ñi làmbatu yoru leen fayi làmp yoru leen noggu noggu yàggu yoggu yoru leen ab jeeg loo mën di lewet lewet ci biir su guddee doonal doonal gaynde e eh, xadatul góor il faut nga am riir moo xam ne mën nga ko jox ci biir néeg bi moo koy jaaxal ba tey ji boo yendu jee sa kër ba fanaan fa bu guddee du nelaw nii lay def fu ne lay xiin xiin nga daa ah, ko lu xew mu ne man damaa xamul kii fan lay fanaan ah, allo Mbodj foo nekk kan ko man xew bi daa guddee moo tax ma fanaan da ngaa war a ñibbi si dina jara sax bu yoree oto mu taal ko ci guddi gi jëli la indi la ndax lan munul nelaw saa yow moo tax kolaas di baax waaw collage collage dafa baax ñaari tàngaay yaram yi dëppalante dafa baax ci biir néeg xale yi dañ may dégg man ku ma ci dégg ni nga téye sa sëy ta du métti te naat nga koy téye tey sëy dara dara du sëy lu du neex neex man sëy gis nga doom yi ñuy wax da ngay dund bànneex ci biir sëy ba doom fekk la ca doom taxul ñuy takk sëy da ciy judd rek bénéfice la bu la ci yàlla jox ah mais bénéfice boobu ci bànneex la nekk ah est-ce que xam nga ne sëy dafa metti góor gu yor dooleem fu ne mu vivre fa aw fa xam nga loolu dafa métti mais bu àndeek métti moom continuer lan mooy sëy bi bànneex nga ciy jur nga ciy def di dund bànneex bi ci biir néeg bi góor di salleeru jigéen di salleeru muy neex lamp yi tàkk cuuraay yi neex xunjur xanjar gi di bari maa wax lii eh xoolal la fa judd ñu xam ne ni bénéfice bu feeñ la mais jigéen ñu bare ngi fi jur kër ba mu fees te xamuñu bànneexu sëy maa la wax lii nay métti rek ma dund ma loolu nay neex eh, nay neex waay. am na solo am na solo am na solo Mbodia Mbaye nay neex wante tey balaa ñuy dugg rek ci mbirum collage dañu gis ne Mbodia temps yëpp bu defee ay vidéo déjà dungu bi. nit ñi ñu ngi ciy wax ñu waxaat aussi Naytal Lamp ñu ñi génn dafa mel ni dafa am ñu jóg pour rien que contredire Mbodj li muy wax wala pour wis ci ndox. xam nga Mbodj moom taal bu yàlla taal sànni ca mat gën di ko fay nee naa la ko fi waxu jonge yàgg na fi du c'est la première fois ñu ko wax waxu jonge yàgg na fi mais déj fàng ji ak fit wi ci Mbodj Mbaye am amul kuy wax jonge ku ko ci am ku ko ci xam léegi nga ko ciy def. mais riir ma ciy ñëwee man Mbodja maa ko ci ñëwee parce que dama ko gëm gis nga man ñi ñiy wax munoo pël bi ñëpp bëgg la ñii dañuy bëgg ñii bañ mais gisam nga Mbodja mi ku koy bëgg na ko bëgg ci dëgg ku koy bañ na ko bañ ci dëgg man Mbodja Serigne Fallou la ginnaaw yàlla yonent bi tiituma dara xamal dax lépp li ngay wax da nga koy ñeme man xale yi laa jóg pour ñu tey seen sëy yi xale laa jóg pour ñu communiquer toog ci seen jëkkër yi di waxtaan ak ñoom di kaf ak ñoom di ree mais biir néeg man boo dama koo fonk yaa ngi dégg kon waxuma nag ci daray diine man man côté diine ji waxuma ci lenn man jamono lay wax mais loo jàngul doo ko tari man jàngewu ma ci diine ji ba di ci wax man jamono lay wax jamono ji maaseeg gone yi lay wax ak ni xale yi war a mën a téye seeni sëy laay wax man lañu bari ñu ngi la fiy gëmloo naan la bu ñu tëddee dañuy fay làmp yi faa yónni ko waaye dañ koy taal waay man yox doo ma bàyyi dañ koy naxe gëmuñu ko koo ci taalal làmp bii mu xool la jàkk boo bañee fay làmp si biir néeg duggal salle d'accouchement dañ fay taal làmp force te ay nit ñoo la fay tiim te su boobaa di nga tal leen doo fa tal yaramu neen de ay jigéen lay waxal duggal salle d'accouchement li tax ñu fay interdit góor du fa dugg te parce que jigéen joo fa gis maari day taali taloo yaram de yow nañ fexe ba lijjanti la ba sa doom ji judd nga ne ci jàmm yow loolu ngay lijjanti pourquoi pas sa jëkkër ji ci biir dégg ba nga koy fay ay làmp fay làmp gëmuma ko ay foo yem ak sa jëkkër du ma xool awraam e xool xool lu laay def damay xool ba mu neex xoolal damay taal làmp ba mu neex te damay sëy ba mu neex xale buñ dugal lool seen bopp te buñ ko gëm ku ko fi fay ba sa jëkkër ji génn ba dajak foq benn ñaari bañ tee ko ba buddee koog moom ci biir néeg bi dootu la xool ngay tërëf ci mbedd mi ay eh, xool bu la neexee booy génn muurul ba ne kamaj mais sama biir néeg lu caay-caay di wone lu band di wone lu neex-neex di wane man Mbodia Mbaye maa ngi ci am na solo Mbodia kon ñu dem ci deuxième partie bi rek kon dégg ngeen ko nee na dee leen di taal làmp bi di xool di teg seen loxo noonu la waxu Mbodia la nag man damaa jottali rek di jeex ni ku yor gerte waaw maa d'accord <laughs> Mbodja décembre mu ngi ñëw décembre nag dafa ànd ak taawam muy seddaay seddaay nag ak jonge Mbodja rek ñu ciy décortiquer wax jéegi rek astuce jonge ak ñi nga xam ne aussi ay euh, jéegu moodu moodu lañ di xaar seen jëkkër di ñëw. ñu ngi jooy rek nag jabar moodu moodi ñu ngi jooy rek tata Mboye suñu jëkkër dafa war a ñëw suñ góori moodu moodu ya toog fële galaas ga di leen fa bëgg a rey te yoruñu seeni soxla foofu nan ñibbi si seen jabar yaa ngi leen di bëgg a dee fii ci sedd bi te ñoom sedd ba fële bëgg leen di bëgg a rey ñu fii sax ñu ngi sedd ku tuuti tuuti fee ña ngay congelé nees ba di wàcc ngeen di kole moodu moodu yi ñibbi si leen seen soxna yaa ngi fii di leen xaar pare nag tout nan ñëw te gis nga décembre bi weer wu neex a sëye ngi weer wi doom ci ci sosu day baax lan da ngay fatu sëy boo gis fatoo ci dàq te gis nga décembre day yee na ci biir néeg ndax ci la lépp lu bees yépp di génn at mu bees la pourquoi pas jéggi duñ ko pare décembre jéggi nañ ko pare moodu moodu maa leen di lancer message bi ñibbi si leen seeni jigéen jéggi ngeen fi ba de gis maa fu mu garaawe ñu ngeeg moom ngay gisagunu seeni jëkkër nan dagg bee ñëw seen galaas nga ne fee bitti na te gis nga fii nii jéeg bu fi werante timis ak gée kasara naaru laay dal na la jéeg lañ ba xuloo bi ñi fi seeni jëkkaat ne nan ba xuloo beeg dagg sant bi xuloow ma du ma bu du ma mës a xuloo laa weeru décembre bii man boo jëmbaay xuloow ma xeexu xam nga lu may def jéem a téye sama jëkkër ji xanaa xamoon ne jéeg dafa boo mën di am te ñu melal laal boo ko ñemee sa faay du du yomb ci biti rek lay am mais ci biir néeg bi sa jëkkër koy wax patt lay def du ci commentaire am na jéeg yoo xam ne dañoo cof biir néeg yow sa yellu rëy sa néeg des amagoo victoire néeg bi mooy sëy bi fi mu doon ni biti bi mboo jaa ci mën a jugé wala ñuy gis biti bi mais biir bi sa jëkkër rek moo ko mën a jugé te sa xolub jëkkër fa lay sedde te foofu koy mën a amee ndam moo tax boo bàyyee néeg dem ci biti yàq nga ko biti deuxième la néeg mooy première kon jéggi décembre bii nañ jënd matériel yi car car ah, eh, déguisement kii dafa dafa baax déguisement set dafa bëri façon xanaa xamoon deux pièces robe bu ji bi yegsi ba fii teg manteau bi ci kaw xanaa xamoon déguisement sedd la pyjama déguisement sedd la te nagit nag lu ci waay di sol ba défilé ci biir néeg ba sa jëkkër gis ko ngir yàlla ak yonent bi booy tëdd nee ko bu dee teg na le ba football ba pare soo ko jugaat nag ci biir laasam ndox tegawaat sa yére génn ndax déguisement yooyu sedd dafa yiw mën na dem bay taaj ndékki ci biir néeg déguisement sedd mën na dem bay taaj ndékki déguisement sedd ak bu tàngaay du ñu benn mais bu sedd boobu ngir yàlla bu leen ko jëlee tëdd ceeg noonu seeni i borom kër di nga gis di jeeg bu sol deux pièces bu rafet lool tëdd bankoog moom sa jëkkër du ko gis amu ci soxla sayoo ci ndax jeeg gi bari yoo xamante nii sedd bii nelaw rek la ñuy féetewoo fi décembre boo la neexee nga war a jàkkaarloog sa borom kër sedd da leen di nelaw lool dañuy mel ni ku ñu dorogee dañuy nelaw rek ndax liw bu mitti bee leen di jax dañuy nelaw rek duñ la amal benn njariñ gis nga lii may wax dama koo téej sama loxo damay fréquenté jéeg gi xam naa leen bu baax maa ñëpp yam am na ñoo xam ne sedd bii ñu yeen ci préparé pour joge am na ci kalaasu mbooja mbaay goo xam ne bu ñu liggéey ba liw banku ji nañ sol seen déguisement bu rafet banku ji wala amaana sax du leen ca fekk nag dañuy daal lëkkoo seenu mël fa wala ñu tegle seen piliweer tëdd du noonu defal sa déguisement bu baax bu jot te boo demee nag bay tëdd e dungu jama waxoon du ma ci jóg de e tey gën a mën a wax dungu ba dina indi ci. Eh, man xool na dëkk bi toj waay eh, xoolal man du ma jug ci dungu ji parce que lu tax la tax mu tax moo tax a tax te moo tax mu tax du ma ci jóg du ci mës a jóg parce que dungu ji mënul ñàkk saa yoo baree nag nga jëlaat sa déguisement sol ko déguisement yi mbappat la maa ko waxoon maa ko waxaat mais nag nañ ba nelaw yu métti yi am na jeeg joo xam ne sedd dañuy defar ba mu baax. te sedd bi ragal naa ne doom yi baax ci la ñuy sosoo ndax day fekk nga tal sa borom kër sa borom kër teel a wàcc fot sa biir kër nga mën a def ci moom li war mais sol sëb déguisement sa jëkka toog di la xaar ngay xandoor te am na jëg joo xam ne xasee ba jafandoy nelaw fexe ba tàqale li nag nelaw wi xar la ñuy def doo xam nooy def e jonge leen te fat góor ñi jigéen ñi fat leen góor ñi ci décembre bi jeeg ju pare ji fat leen góor ñi ñu parewul nag dégluwuñu mbooja mbaay lijjantiwuñu ko considéré wu leen waxuma ñooñu xoolal ñiy bëggee mbooja mbaay di wër mbooja mbal te di ko déglu parce que lii ma lay wax ay góor ak ma koy jooy góor ñi xamuñu dara ay weex am na ñu xamul cuuraay amuñu xamul tus kon nag dee leen def seen déguisement yi jot yi. ci cuuraay boobu mbooja il faut ñu préciser parce que am na ñu mënul cuuraay dinañ cuuraay yow saxaar si dina la bëgg a rey. am na ñoo xam seen cuuraay da lay jox asma wala sax dinañ la doggali benn yoon di góor kenn du ko cuuraay ba tiy jooy te jamono ji gis nga. sedd bi jéeg na jéeg nañu boyal 6 heures am na ñoo xam ne seen doomi daaw ya ba tey moo fi ne te doom day dee comme ni nit di deewee la doom di deewee day dem ba këriñ goo ci def day fay jël sa ñaari doom ci këriñ yi dijji waq sa and ba mu xóot nga jël ñaari këriñ ransale ci digg bi muur doomu taal bi boyal sa ànd ba mu fees dell ab jeeg jamono ji ñu toll sa doom war tafay bu dee tàngaay sama mën nañ la nga wut ay parfum chambre parce que day tàng mais nii nii nii néeg bi dafa war a nugg soo bayale sax da ba fees dell nga daal di muur sa doom yaa ngi dégg la tànk na ngay dugg da ngay teg gowe bàyyi néeg bu mu xër nga tëj ko bàyyi néeg bu mu xër mu xër ba dugg ci rido yi ba pare nga bàyyi ba gowe gi dal nga ñëw afal firi lépp naaw bu firi nga wàccewaat lépp daal di jël cuuraay lu neex daal koy coppati gis nga ni ma koy tibbee da koy ànd ak loos fi rek ba ci doom ba nga ne ko ci teg ci kaw doom bi. xanaa xam nga ñu ngi def ay papier yëpp jaru ko doom bu neex tey dund nga muur ko ci xal ba mu ba gisatoo dara nga teg ko ci. waa ji daan waaye liy xeeñ ci néeg bi mu doon am na néeg jeeg joo xam ne ca balcon ba ca mbedd ma ngay toll gis cuuraay li neex nga naan liy xeeñ fu muy xeeñee. fekk xeeñal nañ ko ba mu xeeñ te cuuraay bu muy yem ci néeg kese ñi am appartement yi dañ koy génn ci ëtt bi muy neex. dafa am cuuraay loo xam ne xaaju guddi ngay jóg ni jàpp ndigg li ni xañ njëng e eh, jël ma waay yooyu eh, xoola bu ma tàkkee nga xam de barke Sëriñ Bamba dootu ko defati e cuuraay bi ngay taal pour guddi gi booy soog a tëdd ak parfum bi nga laal dafa laaj boo jàkkaarloog sa waay ba pare neel cëpp foofu bu dee seen nekk am na salle de bain ci biir néeg bi raxasu ba set yaa ngi dégg sol déguisement bi na fekk renforcé nga juróom doxal yaa ngi ñeenti feri dijj yoo xam ne boo ne tegg sa tànkara mu yëngu ñaari góor du ñu bokk lal góor ak jigéen ñooy nekk ci lal jigéen dafa war bu nee bëlbit digg ni xanjal ah ñoo xam ne jéega tëdd ci lal bi foofu da nga naan cëpp sa jëkkër di fudd fudd lu nga ne ko xaar ma ma ñaw yow dem jël beneen tiila cuuraay bi nga xam ne mooy xaaju guddi mooy cuuraayu xaaju guddi ni ko coppet ndànk ñëw ba tim ànd bi ko nu ko ci tegg salaat nga dekkalaat nga néeg bi yaa ngi dégg daal di ñëwaat boo ñëwee boo boo waree tëdd neex man bëgguma jéeg bu yëg ci laal di yoot maa bëgg boo yëg boo yëg sa tànk bi da koy gëdd ci laal bi tegg mun a gëccax waaw dafay am bruit boo ko nee tegg ci laal bi mun a nga xaw a fudd fullu biic sa yaram mu a rëgg jaj jaj ah waa ji waa ji xam ne yow jéeg bi tëdd na waaye <laughs> barke Serigne Bamba bëgguma ndigg jigéen bu weet jéeg da doon jéeg ci biir néeg waaye jéeg bu wëlbati ku mel ni ñaari góor a tëdd ci kaw laal sa ndigg nu wëndëng dara dara yëngatuw ci lenn man daal mbaay li ma naqari xam naa li sama xol bi su ma ko mënoon a buddi partagé ko jeeg ji benn góor dootul xuloo ndax li leen neex ti biir néeg rek boo ci ay moo fi nekk xoolal cuuraay loolu day daal di commencé di saxaar ndànk sa jëkkër foofu dina xaw a xool-xool lu noonu xaw a def nii nga daal tourné waat jeeg day xaw a fudd fuddulu soo liggéey sa waay ci néeg ba pare soxla deux heures yaa koy liggéey jigéen dëgg sëyam ci kaw ci biir néeg ci jëkkëram daf koy neex limite xam nga ne ngeen sans foofu sa limite la lu la fa neex man nga koo encaisser Sëriñ Bamba laa la giñal waaye yow tam man la booja lu ma lay wax day métti parce que du ma la wax lu ma gëmul xoolal pour yow nga am benn ñaar ñett ba ñeent yow la sa waay lekk na ba suuf mi ngi dooleem lii des yaa koy liggéey moo tax jigéen moo ëpp lu muy déclaré ci biir néeg jigéen ñu bari nag boo leen du leen wokk moom mboojaayam ba tey am na ñu ne amul ak am am na jeeg yoo ba dëpp boo leen dëppan ñu amal benn njariñ moo tax boo wàccee ci digg lal ba taaliwaat cuuraali dangaa war boo yéegaat defaat deuxième round bi ni kacax ba sa waay fudd fudd léegi nga xaw a fudd noonu jël loxo ba nit ko ko fudd noonu loxo moo xam sama fu mu dal baax na sama yoon nekk ci ah xam nga ni yow fekk bu góor koy fudd fudd la far sa loxo bi nit nii day xippi ma daal koy xaw a wàcc mooy kon nelawoo nelawoo ma dama dooma jéeg jéeg day tàllu dolli ma dama dolli beneen dama dolli beneen jéeg da koy coow Sénéra Mbodja <laughs> coow loolu duma ko attan <laughs> <laughs> waxtaan bi am na ah, solo am na solo Mbodja j'espère bien que jéegi lay déglu euh, firi nañ seen nopp te aussi dinañ ci dinañ ci jàng bu baax a baax ñu tëjee ko rek ak astuce su Mbodja boo amee ay produits yoo xam ne da nga koy baaxee jéeg jéegi ak aussi loo xam ne yow da nga koy jaay wala sax da nga koy may jéegi nga wax ko ça fait l'occasion que nit ñi aussi xamaale la ci beneen beneen facette. xam naa bu fi ñëwaat daam lu bari lu ngeen fi fekk ci ay bagages su jigéen. mi ngi ñëw dafa am yu bari yu ma ci commandé nag yu ñëwagul parce que xam nga man Mbodia ku nekk xam na ne li ñuy utiliser ci kanami jigéen ñi di ko sëyee dama ko mës a xeex bugguma ko am na nag yuy ñëw yoo xam ne di ko utiliser te du am ci yow ngaañ te li nga bëgg daf la koy jox te du metti yaa ngi dégg kon nag ay bagage jigéen yéena mi ngi ñëw ankay parce que sooy wax jonge da nga génn preuve boo jëree boole wax ak jëf te incha allah rabbi su ngeen fii del siwaat di ngeen fekkaat yeneen ci kàttanu yàlla Mbodia Mbaye nag ak direct bi muy def chaque guddi samedi dimanche lay doon vingt 22h ba une heure du matin des fois gars yi xëcc ma ba 2h parce que tarkale li ngay xamal li ngay wax dugg na gars yi surtout góor ñi man góor ñee ma apprécier am naa jigéen ñu ma bëgg nag am pa gaay mais góor ñi moom samay xarit lañ parce que lu bari lu ma ciy wax dañ koy dundu te dañ koy nangu xam nañ bu baax li Mbodja Mbaye di wax kon nag dégg yooyu noonu dafay ñëw après jaangi ngi dégg dina feeñ ci direct bi dina feeñ yow boo fi ñëwaatee affaire yi jigéen yu baax la yu yee góor ci néeg góor jigéen moo ko yee ci néeg pour mu am envie pour sëy waaw kay yow yaay yow maanaam bul tuf bi yow yaa koy taal ku góor ki mën a am envie pour sëy mais tey ji li ma wax boo dajalee téeméeri déguisement dajale téeméeri saf-safal yoo xam ne dangaa toog ne yàcc dara du fa yëngu ay déguisement ak ay démarches jigéen ci biir néeg ak ni jigéen di vivre ci biir néeg loolu mooy yëngal góor ba tax mu am envi des fois nga gis góor gu masaana ñëw tëdd sonn ñu tey damaa sonn tëdd nelaw nga fexe ba yee ko ba déclarer geer bi te guerre boo foogu woon sax day da neex ba romb neex parce que yow yaa ko déclaré kon nag mbir mi jigéen mooy déclarer geer ci néeg bi jigéen mooy may envie góor pour mu mën a nekk ak moom ci néeg bi ñu dund dund bu neex te góor ko xas ba gañ ci néeg gañ nga lépp coow li coow li nit ñee coow rek waaye boo ñëwee ba ci moom ban ko mbooja mu ne la mbooja kay moom tarkaal la rek mbooja kay <laughs> amul benn problème doo am problème ci biir bu neexee doo mës a am problème kon waa Sall bi di laa di baax tey <laughs> xale bi sonoon nga bu fi ñëwaat <laughs> bagage it na ñëwaat incha allah rabbi ak fan yi néew bu neexee suñ borom di fi dee siwaat ñu gën a xuus ak xale yu jigéen ci décembre bi. ok. su ma yebbu di la ñaanal yu yaay naqareeru bala Piki piki no yaay